الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواهب المنة ذي الجلال والصلاة والسلام على أكرم الأمة ذي الجمال وعلى آله وأصحابه أرباب المجد والنوال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen waa Medina ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp fa tabaaraka allahu di nuyu waa Ndakaaru waa Sénégal Euh, man seen mbokk Serigne Jibril Diop ànd ak waa Medina yëpp le coordinateur Serigne Jamil Seck fa tabarakallahu ñoo leen di yëgal ni conférence annuelle bi ñu waroon def suba muy samedi 20 janvier 2024 fii ci Medina à la rue 31 angle 6 à partir de 17 heures renvoyé nañ ko à une date ultérieure ndax amuñu autorisation préfectorale noonu la mbir mi tëddee ñi ngi jéggalu ñëpp nag ñi nga xam ne amoon nañ ci yéene pour teew si ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi xaar bis bi ndax gis nañu publicité yëpp fa tabaarakallaahu ñi xaar bis bi Sénégal ak bitim réew international ñëpp ñu ngi koy xaar waaye comme que amuñu autorisation préfectorale renvoyé ngi ko à une date ultérieure maak waa Médina yëpp fa tabaarakallaahu waa Canal 4 ñëpp ñu bari Matar fa ñëpp a ngi fi kon mbir mi foofu la toll ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.